ci convocation wu corps électoral bi enquête yëglekaay ni waa PDS kay jamono ji nag li ñu bëgg rek mooy ñu daal di dakkal processus électoral bi nag waa parti démocratique sénégalais yéenekaay bi ne nag soobu nañu ci ab combat suprême cour suprême aljuma ji nag la fas yéene amal ab audience publique nag ngir mën a saytu lu jëm ci recours bi nga xam ne rek waa parti démocratique sénégalais daal dinañu koy déposé ñoom libéraux yi nag dañoo xam ne ne ay audio dafay circuler jamono ji nag mu nekk ay kàddu yoo xam ne rek dox na ci diggante Amadou Ba ak ay membres yu bokk ci conseil jamono ji nag la ñuy sàkku moo ñu a ne moom kay moddu accéléré nag la fas yéene càmbaree boobee dossier cour suprême moom ma ngay wàññi délai bi fas yéene taxaw janook waa PDS ak ay alliés yi di sàkku nag ñu daal di yëf yi ci boobee jamono nag Walf Quotidien ma ngay dellu ci jàppale gi nga xam ne rek fas yéene nañu koo taxawee Touré jàppale ko candidat Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne APR def nañu dànk fas yéene topp ci ginnaaw amado Ba yëglekaay bi di Le Quotidien ne fi mu toll nii kay APR moom ma ngay renouveler ab confiance am jëm ci candidat Benno Bokk Yaakaar bi Macky Sall jamono ji nag ma ngay tàllal loxo militan ak responsable yëpp sàkku ñu daal di jug jàppale seenub candidat ngir mu am ndam ci élection présidentielle yi Vox Populi moom ma ngay àddu jëmale nag ci déggoo gi am ci diggante njiital Benno Bokk Yaakaar ak candidat am nag waral bi nag ne lii moom mooy nag Macky Sall ma ngay xamle ne lépp luy ay matukaay nag daañu ko jël ngir fas yéene sóobu ci campagne bi nag ma ngay woo responsable yi nag ñu daal di ci amal liggéey bu am solo critique yëglekaay dellu siwaat ci kàddu yi président Macky Sall ne responsable yépp nag laay xaar rek ñu daal di jug wàcc ci terrain bi ngir ñu mën a am ndam ba conserver waat lii di pouvoir bi l'observateur nag dellu si ci lees waxul gi nga xam ne rek am na ci dil bu yees ci diggante président Macky Sall ak candidat bi di Amadou Ba kaay bi ne président Macky Sall moom ma ngay engagé ñii di militants yi nag ngir ñu am ndam ngoonuk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bés bi le jour ne président Macky Sall kay jamono ji nag ma ngay waajal battre campagne jëmale ko ci candidat Benno Bokk Yaakaar bi moom président ma ngay xamle nag ne war ñoo toog di seetaan réew mi di mujj ci ay loxoy populiste Sud Quotidien mu toll nii kay ab mobilisation bu takkoo takko la ñuy waajal nag jëmale ko ci kaw Amadou Ba ci jamono joojee nag 24 heures dellu soir ci campagne électorale bi ak promesse yi nga xam ne rek ma ngay bàyyeekoo ci candidat yi Anta Babacar Ngom nag bëgg naa indi ay coppite ci système éducatif bi xam ne nag ne école gratuite la fi bëgg taxawal bés bu ñu ko falee l'info yëglekaay dellu siwaat ci beneenub candidat mu di Déthié Fall ma ngay digg askan wi nga xam ne rek ñoo yeewoo ca Mbirkilaan ca Koungheul jàpp ko Pentoun ba ca Tambacounda ne bés bu ñu ko falee nag dana fexe ba lépp luy ab ndóo la mu daal di koy jëlee ci réew mi Malick Gakou moom jamono joojee ma nga ca banlieue bu Ndakaaru di dagaan baatu askan wi lu jëm ci wàllu sécurité beek nañu ko war a ñoŋalee fii ci réewu Sénégal candidat bi di Idrissa Seck ma ngay teg fukki mesure ak ñett wax ci lu doy waar li nga xam ne rek Kédougou juróom-ñetti doomi aadama nag ñoo ñàkk seen bakkan ci ab choc boo xam ne rek dox na ci diggante benn camion ak benn wotob sept place yéenekaay bi ne accident bi nag ñoo ci ñàkk seen bakkan bokk na ci ab tuut tànk tàggat yaram ca la mi sport nag di xam ne ne ministre bi ñu dénk wàllu sport Mame Mbaye Niang nag tey jii la fas yéene dalal nag ñii di waa fédération bi stade yëglekaay dellu siwaat ci match amicaux yi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal muy Koulibaly muy Gueye wala Sarr Iliman ak Jackson ñoom ñëpp nag jamono